gis na ni opposition bi tey sénégalais yi euh, am na confiance bi ñu leen jox à travers leur vote mm-hmm. euh, bu ñu leen boolee ñoom ñëpp euh, ñoom ñoo ko ëpp ñoo ko ils sont majoritaires mm-hmm. au niveau de l'Assemblée nationale ban jéego lay teg vis-à-vis de cette opposition la mu xam ni euh, pour gouverner euh, il faudra compter avec l'opposition il faudra les respecter il faudra négocier avec eux euh, et que l'idée de résoudre l'opposition à sa plus simple expression voilà. est, est une est un échec et que finalement je pense que euh, l'opposition voilà a, fait mais opposition bi Aliou opposition sénégalaise bi yaa ngi wax sànq ñëw indi benn yeesal seen mm. Sonko nañu am na benn adhésion bu bëri par rapport ak mbooloo mi ci moom yow noo ko jàngatee cette percée de l' opposition sénégalaise. premièrement ah, voilà premièrement ku mel ni Ousmane Sonko Macky Sall moo doon conseiller en communication. si moom moo doon parce que. Mhm. en force de persécuter non mhm. opposant à mhm. force de le persécuter xoola d'où Ousmane Sonko et parti. c'est un jeune cadre qui est dans l'administration bi commencé di dénoncer yenn mbir yi euh, lancé wu en politique nga nga dàq ko ci administration euh, ak yeneen ak yeneen pour man c'est ça qui a euh, cristallisé benn genre sentiment d'injustice vis-à-vis de ce citoyen là mm-hmm. benn pouvoir boo xamante ni day utiliser la force publique di utiliser la justice di utiliser sa force pour di néewal doole un citoyen sénégalais bu lancé wu en politique d'injustice en injustice, de, de persécution en persécution, de diabolisation en diabolisation, et puis de stigmatisation en stigmatisation euh, que ci la Sonko am ascension bi mu am euh, ça veut pas dire que c'est que ça mais loolu bokk na ci li nga xamante ni euh, quand même ça a en fait Macky moom moo construire la bête mhm. politique qui aujourd'hui constitue son principal euh, euh, opposant politique à côté des autres aussi ah yi nga xamante ni y a pas que Ousmane Sonko y a d'autres jeunes euh, opposants politiques yu nekk di émerger euh, qui n'ont pas forcément les mêmes fortunes quelqu'un comme ay ñoom Thierno Bocoum mhm, mhm. quelqu'un comme ay ñoom Déthié Fall mhm. Déthié qui est sorti un peu du tutorat de Idrissa Seck pour s'affirmer en tant que leader politique aujourd'hui euh, Abdourahmane Diouf qui est aussi une bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise hein, qui est qui est, qui est qui un opposant politique respecté qui a un bon discours aussi euh, ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñoom y a beaucoup de politique de jeunes yi nga xamante ni ils sont arrivés et euh, discours bi muy wax yéen gis ngeen ci